mbégte ñu seetaan dalati leen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës communauté bu euh, Samb ci xutba ba mu jëloon ci bisub it korité la woon tey jii la ko Abdoulaye Makhtar Diop ak ñooñam xamle ci seenum ndaje ak taskatu xibaar yi ñeen fukki milliards ak juróom-benn Fatick la ko daan baaxee ngir ñu gën a ñoŋal seen koom koppar yooyu njiitu réew bu Sénégal xoolaat na ko dem na bàgg ci juróom-ñaar fukki milliards daañu dem foofee ci diwaan baak Ibrahima Kane opération coup de pont la amal ci avenue Lamine Gueye leen ko déggee lañ ñu Samba Boy ak defkatu ñaaw teef nekk diwaan ba ñu jëlee leen fa dogal bu ñu nekk ca centre ville rafetlu rawatina ñu dëkkee ca booru Sandiniéry li ñu gis mooy amatuñu sikki sàkk ci seenu kaaraange wér-gu-yaram mbokk yi jamono ji nag lu jëm uh, ci wàllum uh, paj mi jàngooro ji jàpp nopp yi la gën a nemmeeku uh, ci bërëbu fajukaay ba nekk ca Wakaam bu nu sukkandikoo ca ñu fay xëy di toppatoo askan wi lu jëm ci sibiru ne ñu jamono ji bareegu fa tàggat yaram Modou Lo bomb Bombardier ñaar fukki fan ak juróom euh, ci weeru juillet bi nu nekk nara yamoo ak bésub euh, aser ñu doxantu ca Parcelles Assainies askan wa ne amuñu ci benn sikki sàkk moom xarañ loo dina foqati couronne bi ci Bombardier mi nekk roi des arènes di ci yenn kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye la nara doon taxi lu leen mbokk yi ñu faram fàcce yi lépp jaa ngeen jëf mbokk yi ci seen safo ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias ni leen ko waxee woon ca bopp ba noonee la ñu koy dooree grand sëriñ bu ndakaaru Abdoulaye Mokhtar Diop ak i ñoñam ànd ak ki nga xamante ne si moom mooy imaam Sambu ñoom daal ñu ngay feddali seen kóllëre euh, ci mbir mi ca janoo ak taskatu xibaar la ñu ko waxee loolee soxal euh, baam ci bisub it la woon yema woon ak korité Hadia Talla moo fa teewal Hadia maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Fatou Dieng. luñ mën a jàpp ca ndaje ma bu weesoo seen kàddu yooyee ñu ne ànd nañu ak imam bu grande mosquée. waaw ñu ñu ko waxee noonu la communauté lébu bi tey jii ñu doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi nee nañu ñoom ànd nañ ak imam ji nga xamante ne mooy ay lu ñu taa Samb ñu yëkkati woon kàddu rek di laaj président Macky Sall ngir mu maintenir mandat présidentiel am bii ci sept ans loolu nag ñoom ñëpp euh, luñ ci gis mooy détermination nee nañu si imam bi wax ñoom ànd nañ ci. ba pare nag kii di Abdoulaye Makhtar Diop bi doon animé conférence de presse bi dafa daal di fàttali rek ne kii di imam Moussa euh, Alioune Moussa Samb mais militant PDS la te moom balaa loolu kii di euh, Abdoulaye Wade waxoon na ko fi nañ ko bàyyi mu liggéey te moom euh, rafetlu woon na lii Abdoulaye ne nekkoon ci bopp réew mi ñuy laaj rek nit ñi lu waral rek bi agitation bi yëpp nee na moom xamu ko wante daal li ñuy mën a xamal askan wi rek mooy que ñoom ñoo ngi ci ginnaaw imam Samb euh, ñuy laaj tamit euh, bu fekkente ni dañu bëgg imam bi bañ a wax ci waaw mbirum politique li ñu bëgg laaj rek mooy que nu imam yëpp noppi te loolu nag mënul nekk ci di Abdoulaye Matar Diop tamit ñëwaat na suñu cité si ki nga xamante ni mooy Bamba Ndiaye nee di moo laajte woon rek ngir ñu dindi rek ñu dindi euh, gestion grande mosquée bi si loxoy lébu yi si nomination imam bi tamit si loxoy lébu yi nee nañu loolu daal du wax du leneen lu dul waxi kasaw kasaw ñoom communauté lébu yi bi Dakar sosoo ak tey ñoom ñooy nomé Abdoulaye Makhtar Diop bii daal taala ñu koy sant di ko gërëm ci leeral yi ñu wax ci leneen beneen ponk itam ñu junjoon leen ko ci avenue président Lamine Gueye Samba Boy ak defkatu te fii jële nañu leen faloole nag di mbir mënu amal ni ki démb ci àllarba ji askanu centre bi rafetlu na ko rawatina ña fare ca booru Sandiniéry lu ñu gis mooy jamono ji xel dal na ci kaaraange leeral yeeg Cheikh Tidiane Dione. lii mooy rii Sandiniéry mais mi ngi nekk ci biir goxu ca déem mbat sekk ko ak rival mi ak ñaaco keer ci bâtiment bi ay defkatu ñaawteef daanaka mun nañ ne sax ñoom ñoo fi dëkk jamono jii te fii nag moom moo doon dalal marché bi nga xam ne fii lañu doon jaay légumes fii nii ci euh, Sandaga jamono jii askan yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foo ci centre ville daanaka nelawtuñu bay yandoor daanalee marché Sandaga bi dina ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaayee ci marché bi ñun bàyyi woon fi ñi fi doon jaayee ñu dëkk fi ñoom ñu nekk fi sax moo ñu gën a lii ñu fi bàyyi ay agresseur ñoo dëkk ci biir marché bi fii kenn du wuy téléphone kenn du dox au delà de 6 heures jëm 7 heures jëm 8 heures da ngay dox ñeent juróomi nit ñu wër la palpala agressé la. agression yamatuñ sax si guddi gi mais léegi dañ koy def bëccëg ndar kàmba làqatoo ñu. amoo jour fi leen këf benn saak daw dugg maanaam gars yi leen mobilisé wu daw dugg ci biir génne génne sa sa ñeen ñi ñëpp dañ leen a son dañuy génn guddi gi di sàcc seen i affaire ak jàppal baay di jaar fii mel ni amuñu kër ndey kër baay fii dañ leen sa wër a génnee jaaxle ak njàqare daal leen dikkal ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci boobule quartier jamono ji dañuy sàkku ndimbal la ñoom sax nee nañ daal dañoo bëgg ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu daal di ciy dugal seen loxo ab opération coup point ñu daal di ko fay amal lu ni mel ñoom ñu njort ne war naa mën a indi jàmm foofee ci seen quartier ba koy woo moom mi nga xam ne mooy maire Dakar Plateau ak Khalifa Sall mi nga xamante ne moom mooy maire la ville de Dakar na ñëw jàppale ñu ci lii nga xamante ne mooy diis bi ñuy yendoo di ko fanaanoo di ko gis te mënuñu ci dara. ñoo ngi woo suñu autorité la maire le préfet gouverneur ñu jël seen matuwaay balaa affaire parce que ñun doot dootu ñu teggil suñu tànk moom. ndaw yi dem bay tuumaal ñi nga xamante ne ñoom ñooy defkatu ñaaw def yooyu ne bés bu yàlla sàkk ñoom daal seen jëf dafay gën di wéy lu ni mel sax moom moo tax seen quartier na mu meloon daanaka dafay wàññiku bés bu yàlla sàkk. lu toll ci ñeent fukki milliards ak juróom-benn la ñu baaxee woon euh, diwaan bee di Fatick ngir gën a ñoŋal koom li nag njiitu réew bu Sénégal xoolaat na ko ba mu àgg ci juróom-ñaar fukk ci ay milliards ci sunuy koppar lañ ca bëgg euh, gën a ñoŋal euh, lii di wàllu koom ñu ànd ci ak Ibrahima Kane Modou Diop ñoo ñu teewal ci diwaanu Sine. gannaaw diisoo njiitu réew mi ak gouvernement am ci conseil des ministre bi ñu doon amal ci Fatick Macky Sall fësal na koppar yi ñu nar a natal gox bi ngir jéppi koom-koomam gunge ko ci wàllu développement ñoom bi ñu defee évaluation ñu ngi toll woon ci presque deux cent quarante milliards maanaam deux cent trente neuf li ñu ci yokk mooy neuf milliards euh, mu dem ci deux cent quarante six milliards six cent quarante sept millions ak lu topp. conseil des ministre décentralisé bi nekk bi mujj bi gouvernement Macky Sall doon amal mu ngi yemoo ak lancement première phase active bu programme d'urgence de développement communautaire ñetti ay bés gannaaw bi ñu ko lancé ci loolu nag Macky Sall ci teewaayu PNUD bi nga xam ne moom mooy doxal programme bi dal di jébbal matériel gi yenn ci gox yeeg gox-goxaan yi ci département Fatick Foundiougne ak Gossas. loxo la ñu wole loxo la ñu bojjee ci li gën a bëri ci kaw bi donc li tax PUDC jóg mooy dindi loolu ñu far ko mooy ñoom ñu fexe ba dëkk yi am courant ñu fexe ba dem bi ak dëkk bi yomb ci ay wàllu yoon piste de production mooy itam fexe ba ndox mi nekk loo xam ne dinañ ko saafara. matériel bi nekk lu am solo nara soppi tamit nekki ni ñiñ ko jagleel bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu. da ngay dem laa la wax sóob ak sa gënd di soq wala nga dem soq ji fële wala ji fële kon mën nañ ne lii nga xam ne moom lañu gis fii tey ci Fatick euh, monsieur euh, président président indi ko fi ñoo ngi sant yàlla te di ko rafetlu bu baax te xam ne ñoo ngi door a wax ne première fois ñoo ngi koy soog am. liggéey bi am ci dara moom lañ ci bëgg dem miin nañu liggéey dañuy doon bojj di soq di béy loolu yëpp naa wax ne Macky dindi na ko. gannaaw conseil des ministres gi nag ci alxames gi Macky Sall dina inauguré port bi nga xamante ne moom la ñu def ca Ndaxonga bu fa jógee it inauguré li nga xam ne moom mooy hôtel de ville bu Foundiougne rawatina conseil départemental bi. bu ñu nuyuwut uh, waaw góor itam nan ñu bàyyi ñu liggéey sunub liggéey loolee di kàddu yu njiitu réew bu Sénégal mu mel ne nag day tontu ñi nga xam ne uh, dañuy ŋaañ ñi ni ñu joxee programme bi di PUDC uh, ñii di waa PNUD njiitu réew bu Sénégal ak Ibrahima Kane ak di Diop. xalaat ba ma def tey ma am ci mbégte mooy ba ma ko dënkee programme de Nations Unies pour le pour te xam ne mbootaayu xeet gi la. xam nga ne ku jël téeméeri milliards ak fukk ak juróom-benn jël ko sa budget dënk ko ñeneen ñu gérer la ko xam nga ne kon defar moo la tax a jóg moo tax dama bëgg féliciter PNUD féliciter leen ak féliciter équipe bi ànd ak PNUD parce que ñii ci nguur gi la ñu nekk. kon gàcce ngalaama en tout cas kontaan na trop ci nii nga xamante ne matériel d'allègement des femmes noonu lañ ko réglé te noonu la ñu songe itam yeneen vole yi muy voir yi. piste rurale yi muy électrification ak leneen di ci jëm donc loolu vraiment day wane ne am na beneen xeetu liggéey bu gaaw bu mën a am ñi nga xam ne nag ñoom jaxase moo tax ñu jóg di jàpp ne dañuy maanaam nasaxal gouvernement bi rek dañuy jox ñale la ñuy wax dafa méngoowul ak li am njiitu réew bu Sénégal sax démb yegg na maanaam euh, baaxi jumtuwaay yooyu toll ci ñeent fukk ak euh, juróom euh, ñaat ñeenti téeméer ngeen baal ma ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari machine yoo xam ne daal wàllum transformation la ñuy yëngu ñaar fukki commune ak juróom-ñett yu département yu Fatick Foundiougne ak Gossas loolu nag ñu ngi ko xayma jumtuwaay yooyee ci lu jege juróom-ñaari téeméeri milliard million ci sunuy koppar ñu wax ci leneen nekk askan wi lu toll ci benn ayub bés ñu ne euh, xeet gu bon bàyyeekoo ci am ndox moo xamante ni si euh, ma nga ci euh, ab régol loolee la askanu amitié ami ci 3 di dundu askan woowee nag la ñu sàkku rek moo ñu jàppale leen ndax danoo njort ne lii bu nu ci jugut mën naa laal seen wér gu yaram Codé Ndiaye ak Gervais Yaw askan wi dëkkee ci Amitié 3 di dund ay jafe-jafe ñeenti fan gannaaw bu ab ndox mu salte di ball ci égout bi muy nag mbir mu tàmbalee jéegi dayoo. ndox mi salte bi ñu ngi ko nemmeeku depuis depuis depuis ñeenti fan waaw woo nañu woo nañu ONAS mais ba léegi gisaguñ leen léegi ñoom suñu problème c'est-à-dire actuellement comme que ñun ñoo nekk ci côté ci côté voisinage bi daf ñu déranger non seulement déranger bi ci lan ci moustiques yi ñu ngi ñuy sonal odeur bi. dafa dafa ñaaw trop. benn mu ngi yàq mu ngi yàq lu bëri ci quartier bi suñu toogee au début da lay gën a sonal te xet bi beneen affaire la lii bu woowee tamit ci tali bi nu mu ndox bi nu muy kuule ni bu woowee dana mën a jur lu bëri sept familles on appelé l'ONAS mais en vain ñëwuñu mais désagrément yu muy indi déjà les enfants sont en vacances ñu ngi ball ci ndox mi oto yi. ngir nag fagaru ci yenn ci ay feebar rawatina ci wàllu ndaw ñi askan wi di sàkku ndimbal ci autorité yi. lu gën a métti mooy xale yu nekk xale yu nekk actuellement en période de vacances xale yi ñu ngi foo ci ndox mi oto yi tamit ñu ngi oto yi ñu ngi dox ci tali bi ndox mi tout ça léegi daal ñun lu ñuy naan mooy daal que l'ONAS ONAS ñëw daal le plus rapidement possible comme ça mu mun musal ci ci saleté égo yi daal. ONAS moom ñu ngi leen di ñaan vraiment ñu dimbali ñu ñu ñëw régler affaire bi le plus tôt serait le moo am doole fii moo war a gis LONASE mu jàppale ñu ci ndox bi. si jamonoy nawet bi ñu nekk nag askan wi di sàkku ci ONAS mu def liggéeyam ngir rek mën a fagaru ci yeneen ci ay feebar rawatina ci xale yu ndaw yi nga xamante ne ni ñu ngi ci vacances ñoom sax dañuy faral di dugg ci ndox mi te loolu mën na leen jural ay feebar. Codé Ndiaye zone de captage moom yoo la ñuy joytu ne ñu ne la watunu ba yandoor ko waral bassin rétention bu diwaan ba moo fa indi yooyu yooyu la jël leen huit loolee sax ñu naan ay du yem ci bopp borom euh, hôpital général bu Grand Yoff ñoom it euh, mucc ñu euh, Maymouna ak Mohamed Dieng Ablaye Thiam 2009 ba léegi mi ngi yeewoo fii ci zone de captage fi mu toll nii nag ci gox bi jafe na leen loolu ñu tàggoo ak yooy yi borom kër bi nee na lu ne lay def. dañuy traumatiser sincèrement yooyu moom dañuy traumatiser surtout ba yore ay xale en plus da ngay pompe bala ngaa tëdd et da nga tëdd ba trois heures wala 4 heures nga jóg xool sa néeg mbëri yoo nga taal lampe bi ci ma xool nooy def pompe leen soit nga génn après nga tëddaat boo waree xëy suba liggéeyee da ngay biddanti à tous les coups. nag li ko waral mooy bassin de rétention bi nga xam ni moo féete ci seen wet. askan wi nee nañu xamatuñu lu ñuy def li ñu bëgg rek mooy ñi ci war a jug jug ci. man a part de tennis laa commencé pompe bu ñu jëlee tennis a pare laa commencé bu dàkk yooyu nga xam mën tëdd waaw. tamit odeur bi tamit canal yi fay tamit kii pompe mu ñëw yooyu si la ñu gën a dégager di mën a ñëw. saafara bi soit ñu def ci xool ay études yoo xam ne ni dinañ mën a def de telle sorte que ndox mi du stagné soit ñu def euh, ñu def ci benn projet boo xam ne ni ndox mi day day dem directement du am ñax du am dara. lu ko soriwul dara ñu ngi fii ci hôpital général bu Grand Yoff fii nag jafe-jafe yi benn la. day am ku tànkam damm mu ñëw ñu koy tabax opéré ko faj di ko faj yooyu dugg ci hôpital bi matt ko mu am siburu ngay faj damm-damm di faj siburu loolu kañ dara gënu koo leer. kon bassin bi dañ ci war a jóg jóg bu rëy boo xam ne dama ciy sax man woo le président de la république woo ci ministre de la santé et de l' action sociale ndax xam ngeen service d'hygiène ci ñun la bokk. gannaaw si yooyu bari yi fii ci zone de captage askan fa fay yeewoo bëgg nañu ko leen jàppale ba kaaraange gi daal di doy ci seen gox fi mu toll nii nee nañu tàllal nañu seen loxo seen commune. ñu des ba tey ci lu aju ci wérgu yaram ak euh, bërëbu fajukaay bi nekk ci Wakaam foofee euh, ñu ne nag jàngoro yi ñu fi gën a nemmeeku mooy jàpp nopp ak yu ni mel jamono si euh, si biiru bareegul ndax duggagunu bu baax ci nawet bi leeraleeg Alxasan Ba. amul benn patient bu ñuy nemmeeku ci centre de santé bu Wakaam bi depuis bu ñu jógee ci fête yeeg léegi malade yi fi ñëw consultation bëriwuñu. infirmière bi nag di ñu wax ci jamonoy nawet yi feebar yu ñuy faral di gën a traité. temps yi consultation yi xaw na bëri mais surtout état grippaux yi ñoo gën a bëri pale bi presque mën nañu wax ni jeex na mais maintenant y a depuis quelques mois on a plus de cas pale wax dëgg yàlla pale bi wàññeeku na bu baax a baax infection oreille aussi bari na fi pneumopathie aussi bari na fi. bu ñu sukkandikoo ci moom ba léegi seen service mu ngi def kéem kàttanam ngir dalal seen patient yi te loolu yëpp nag mu ngi tàmbali ci accueil bi. accueil malade yi ñun ñoo koy def parce que normalement am na ñoo xam ne waroon nañu nekk ci buntu bi di leen accueillir mais te personnel yi bariwul noonu quoi ñun ñooy gérer accueil malade yi et tout. si biiru nekk feebar ju ñuy faral di nemmeeku ci jamonoy nawet ji. wante bu ñu sukkandikoo ci infirmière bi ci malaat yi fay ñëw consultation feebaru sibiru bi nekkut lu ñuy faral di nemmeeku. ñu wax ci doomu Sénégal yi nekk ca biti réew na ñu nekk ca Maroc juróom euh, ña nekk ca Gabon ngeen baal ma juróom ñaar fukk ci ñoom euh, ñu tey leen loxo lu toll ci ñaari ay bës ngi nii ay koppar la ñu leen di laaj euh, aju ci wàllum këyit ñu ne sax koppar yooyee daanaka jege na benn million ci ku ne ñu ne loolee la ñu amut ba tax na ñu sàkku ci askanu Sénégal rawatina nguur gi ñu fexe ba delloosiwaat leen ci seenum réew dañuy teewlu Alassane Ba Alassane Ba moo yore seen mu jokkoo ak. Daniel Diouf. affaire bi dañu naan problème carte séjour la mais bu ñuy rapatrier presque quatre cent et quelques ay yi même ëpp nañu soixante dix ci ci biir euh, yi ñu jàpp au lieu ñu yóbbu leen Sénégal mais dañ leen di yóbbu ba Nigéria ou bien benn ñu sent leen foofu amuñu benn moyen ça fait deux semaines mi am nañu nekk ci prison bi ba léegi mënuñu génn dañu laaj ay millions deux cent ou bien huit cent mille am ñam même dañu fay di lekk seen xaalis ñu bàyyi leen ci kaso ba léegi ñu ngi foofu lépp ñu naan ñu ngi foofu di leen xatal xam nga Nigéria boo fa demee nga war a dem senegal amoo moyen amoo même loo jënd ndox wala leneen loolu torof torof lay doon. ñi ñu yóbbu Nigéria. Mm-hmm. ci lan lañ leen def dañ leen tëj foofu wala dañ leen yóbbu rek sànni leen Nigéria. avant ñu la yóbbu dañ lay tëj même lu ndaw ndaw une semaine boo nekkul une semaine ay dix jours après ñu jël bateau yóbbu la ba Nigéria mu nga Al Assane Ba doon jokko ak danielle Diouf ñu amoon itam yéene jokko ak ambassadeur euh, bu Sénégal fële ca Gabon waaye nag mbir mi antuwul ñu wax ci leneen juróom-ñaareelu salon bi àdduna jagleel wàllu wér yaram ak itam jumtuwaay ca aju tijji nañ ko niki démb càllar ba ji euh, ci ndakaaru la ñu ne nag euh, nit yi bareeguñu lu ci mën a am ñoom exposant yi ñu ngi am yaakaar Aïssatou Pay Fall ak Mbaye Diouf doxantu dañu fa bu fekkee ni juróom-ñaareeli salon bi ëmbal lépp lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram ubbi na mu mel ni yëf yu xumbagul am ñoo xam ne sax sàncaguñu seeni stand. dafa am ay clients yoo xam ne ils ont venu tardivement alors que ñoom dañuy bëgg ay modifications mais plan yi ñu joxoon vie li ñu joxoon ñun on l'a déjà fait mais bi ñëwee ba si biir par rapport ak yenn yenn exposants yi seen pavillon yi ni ñu mel. ñoom dañuy dañuy bëgg ay ay kii euh, ouverture quelque part pour nga xam ne dañuy am visibilité. moom nag dafa teel a inscrire mu door sax ay activités de dépistage du diabète. ñun li ñu gën a liggéey mooy wàllu diabète bi wàllu diabète bi euh, gis nañ ni am na solo Afrique parce que euh, évolution bi moom gaaw na lool te daanaka épidémie la moo taxoon ñu ñëw dugg ci ñëw Sénégal pour pour liggéey ak ak waa réew mi ci ci ci wàllu am na hôpitaux yu mag yëpp presque am nañ fa appareil donc hôpitaux yu Sénégal bon ñun avantage bu ñu am mooy dañuy dañuy dañuy yëwanal prix prix prix test yi dem ci appareil bi. madame Savané moom itam teel a tijji standam mu yëngu ci wàllum produit yi nga xam ne day rafetal yaram. ñun ñun produit naturel la ñuy liggéey mooy produit yoo xamante ni c'est des produits pour la peau pour der bi pour rafetal der pour euh, euh, maye karaw pour defar yaram daal produit yoo xamante ni dañu ci plante yi la ñu jógee euh, plante yi nga xamante ne ñooy sax fii ci suñu dëkk bi ay produits naturels produits bio produits d'origine sauvage yoo xamante ni agriculture saine la amul benn produit chimique de synthèse amul ay ak pesticide ak yooyu. ñaar fukki fan ak ñaar ba ñaax fukki fan ak juróom dem beeg dëkk bi dina bëri ci wàllum échange jënd ak fësal bépp fànn ci wàllum wér-gi-yaram. boobee aju ci wàllu wérgu yaram ay satu pay faal cérémonie officielle bi ñu ngi ko jàpp tey ji euh, ci ngoon euh, léegi léegi tàggat yaram bu bàkku bi daanoo lay doon. koy dooree mbokk yi aseer ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet di bés bi ñëpp di xaar Modou na nara jàkkaarloo ak Bombardier ca Parcelles Assainies euh, nag mbooloo mi tàmbalee gu takk lu ci mënaam a euh, yenn euh, fan su yi Lo mun Maimouna Ndiaye taseel lan wax mooy noppi na nu ngir bàyyi lépp jàppale xarañ ndax da leen a biir ne moom xarañ loo ñaar fukki fan ak juróom bu nu ca àggee dina fuqati couronne bi ci Bombardier Parcelles Assainies unité 10 mbedd Modou fi mu toll nii tekk tekkaaral lañu fi nemmeeku combat bi nga xam ni samedi lañ koy amal diggante xarañ loo ak B52 bu mbuur ñii ñu fekk ñu toog janook buntu kër Modou Lo nee nañu amuñu ci xel ñaar. liggéey sax defatuma ko sama atelier ngi ma tëj. mécanicien. am na ay con maa bi man la ël bu xarañ loo ndam rek. combat bi ñu ngi koy waajal comme ñu daa waajal yeneen combat yi rek yokk ay ñaan di ñaan yàlla yàlla may ndam la sét gu ci kaw Bombardier te bu soobee yàlla man am naa yaakaar ne kombaa bi dañ koy daan barke Seydouna Mohamed man damaa wóolu sama mbër bu baax a baax a xam ko xam mooy kan xam fu mu xam fu muy fu mu war a jëm te roi bi bu soobee sëriñ Fallou Mbacké yàlla mi may ndam 2014 nuy may roi. tey def ndànk boole ko jom ak fulla loolu la fan si gis ci combat bi wante bu ñu sukkandikoo ci soxna sii moom nee na nañu def ndànk. ah du yomb nag combat bi du yomb. ah xëy na ñaari poids lourd lañu waaw mu ngo te ku ne bëgg nga daan sa morom ñun dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ko ndam yi mu ko daan may rek bu sedd guy. enjeu yi nag bëri nañu ci bile combat fan sii dem ba naan sax guerre mystique la maanaam xar fa xuufa yi ñoo ko yor. jaral na ko ndax Modou day dem ci sëriñ ñun dañuy dem si sëriñ ndax ma ne am na lu ma de sàkku naay ñaan Casamance laa jógee barki Seydouna Mohamed. déggoo li ma la sànq bu combat bi jaree sacrifice man ma sacrifice sama bopp. Bombardier ndax dina génn ci komba bi Modou Lo ndax dina jël roi bi lool nag ñu ngi koy xaar ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet gannaaw si combat bi bu jeexee. moom Modou Lo janoom ak taskatu xibaar yi wala bokk euh, open press bi euh, démb la woon moom xarañ loo doomu Parcelles ni am na lu mu denk sunuy naataangoo ñu teewlu ci aslëf dellu siwaat d'abord di leen nuyu yéen journalistes yi bu baax a baax di xam lu seen teewaay fii ci open presse bi di nuyu encore bu baax a baax képp kuy bëggee Modou Lo maa ngi leen nuyu partout dans le monde. Modou yaa ngi sa wàccaay combat ak Bombardier fan nga toll ci préparation. waaw waaw ñu toll fii moom mën naa ne pare na loolu liggéeyal woon ba heure bii mënatoo ko liggéey xam nga ay saa yi dañuy mbencee rek xam nga di xaar ba bis ba bu neex yàlla li war a liggéey li ñu war a liggéey liggéey nañ ko depuis oui yàlla may ñu tal ak dem daan ko ñëwaat incha allah. ngeen def face à face ci diggu góor bi nga jugee fa dem États-Unis lan moo waraloon sa delluwaat États-Unis. waaw parce que xam nga may dem dama am séjour temps ma fa bëggoon def. itam da ba ma demee nag temps bi jotul woon mat xam nga ñu am conférence de presse fii nii xam nga ñu am signature de contrat da wax dëgg yooyu yëpp ci contrat bi la bokk ma bàyyi lépp lu may def ñëw def ko après delluwaat dégg nga woon suma séjour. nga ñëw indaale poids lu ko waral. non poids bi wax dëgg yéen a ko gis mais man gisuma ko wax dëgg quoi xam nga. gisuma ko xam parce que tamit bu dee yokku naa tamit teew ma def dara quoi li ma doon mën xam tey laa gën a mën sama vivacité tey la ëpp lépp daal tey la ëpp moo tax yëguma bu baax waa Bombardier itam tey ji ci ngoon la ko fas yéene amal rédaction bu télévision Futur Média ni ko defee ak xarañ euh, demee bu ci yàlla àndee di ngeen ci am lépp lu rusandi ni xibaar euh, soxal open press bu Bombardier naka noonu itam daañu doxantu ba diwaanu Mbour euh, xool rawatina ñay safoo bombardier naka la ñuy dundee ak waajale bile combat ñu des ba tey ci làmb ak Youssou Ndour mi nu euh, jagleel guddi gi nu jagleel làmb euh, mu na a yamoo ak benn fan ci weeru août weer wi nu dëgmal euh, ñu ne sax CNG ñoom ñoo amal li ni mel comité bi nag démb daje nañu ak ministre conseiller moom Youssou Ndour PCA bu groupe Futur Média ak itam équipe bu GFM Entertainment Youssou Ndour nag joxe na maanaam xalaatam itam ngir daal di ànd maanaam accompagner ñetteelu édition boobee euh, ñu euh, jagleel lépp lu aju maanaam ci bañ fitna maam Biram Diouf dundal làmb fii ci biir Sénégal ngir mu doon loo xam ne dina suqaliku yu Ndour ñu euh, tuddee ko nag guddi ga nga xam ne nii mooy la nuit de la lutte ñu war kon amal ay sargal muy parrain bi choix bi nga xam ni nag CNG dakaa def doon na lu am solo ndax dina wane rek liggéey gu am solo ga nga xam ni mu ngi koy def te sax weesu Sénégal. ba ñuy ut euh, modèle ci biir làmb ji pour jox ko xale yi ci pour suñ édition bi bureau bi xalaat ne Youssou Ndour li ñuy wax la bon profile moom la parce que su waxee xale yi dinañ ko déglu su wanee jaar-jaaram xale yi dinañ ca roy te loolu moo am solo te foog naa réew mi toll na foo xam ne war nañuy génne les bons modèles pour xale yi roy ko ci introduction am wax na ko. désordre dafa am ci réew mi ku jóg ku nekk bàyyi leen ma ma def déedéet ku nekk day def te bañ a déranger keneen ki donc foog ñu dellu si ci orthodoxie boobu ngor doon na ko wax la méthode et l'organisation les enfants aujourd'hui soxla nañ loo xam ni suñ ko gisee war ko mun a roy pour mu yóbbu leen fi ñu war a yegg mais xeexoo bi xuloo bi du ñu jëmale fenn moo tax guddi gi ñu tuddee ko parrain bi Youssou Ndour def ko nag l'arène sans violence parce que je crois que jaar-jaaram amul fenn fuñ mën a taxaw ne keroog ba muy taal ah yaakaaruma ko bokk te fekke naa ci lu bëri wax mu ne wax ne fekke naa lépp mais fekke naa ci lu bëri ministre conseiller doon it président directeur général bu groupe Futur Média Youssou Ndour kon nangu loxo bi ko CNG tàllal ngir mu doon parrain wu nuit de la lutte mu rafetlu ko waaye it woo ñëpp ngir ñu taxaw làmb suqaliku. ma kontaan si événement bi ndax lu ubbi faw nga tëj ko lu ubbi rek da koy saison bu ubbee dafay tëj donc muy grande opportunité pour yéen ñi nga xamee ni que yéen lañu ñu dénk mbaanum organisation bi pour que aussi ngeen encourager parce que il faut célébrer les gens il faut encourager les gens ku def lu baax ñu ne def nga lu baax pour que ëllëg sa morom mën ci roy pour mën a def donc lu ñu rafetlu la gis nañ yéen koy def te lépp loo xamee ni que war ngeen ci mën a taxaw yéen groupe Futur Média pour que euh, soirée boobu nga xam ne sargal la pour d'abord lutteurs yi euh, reconnaissance la pour des encouragements et pour wane na aussi suñu làmb deewul du daanu na ko def ku bañ làmb bañ nga sa bopp ku amul fierté ci làmb amoo fierté ci sa bopp sénégalais nuit de la di guddi nga xam ni nag kon dina ci amal ay sargal màggal lii di làmb fii ci biir Sénégal ñetteelu édition bi kon ñu nar ko amal benn fan ci weeru août parrain bi ren doon Youssou Ndour ka nga xam ni mu ngi liggéey sa su nekk ngir jàmm am ci biir réew mi ak fépp ci àdduna si Mame Biram Diouf demi-finale coupe de la Ligue Dakar Sacré-Cœur moom moo door stade de Mbour benn ci dara ndaje ma nag ma nga amoon ca stade Caroline Faye bu Mbour dinañ ci dellusiwaat suñu yeneen jotaay xibaar ak Abdou Diouf Junior ak Babacar Ndom ñu ñu fa teewal ñu wax ci beneen euh, tàggat yaram di basket ak lu jëm ci wàllu assurance yi ba ci mujj euh, te nu mujj ci sax indi saafara di mbirum góor gi Sidien doomu Sénégal euh, bi équipe nationale bu basket woo ko te mu nekk ci NBA jafe-jafe assurance violence juróon coow ñu ne loolee du njëkk atum 2014 euh, ca euh, bu jëm ci wàllum euh, coupe du monde ak nanu ko doon waajale ca Espagne amoon nañ jafe-jafe bu ni mel Mansour Sow junior ak Mohamed Dieng ñooñu ci defal ab gëstu ñu teewlu leen. gannaaw ka maam Jojo Diouf ak góor Gorgui Sy Dieng ci atum 2014 coowal assurance judduwaat ci biir basket bu Sénégal. ñu ngi jot dossier Gorgui Sy Dieng ajjuma semaine bi yëpp nit ñee ngi doon wax affaire assurance bi ñu ne ñun jotuñu woon fiche pour assurance le directeur de l'administration générale et de l'équipement muy DAGE bi jël dossier bi yóbbu ko aussi au niveau du ministère des finances parce que DAGE yorul xaalis boo xam ne dañuy wax DAGE rek mu génnee kees ne am dem leen fay. talaata bi weesu korité semaine boobu semaine boobu ñu korité talaata bi ministre des sports ci boppam joxe na instruction pour ñu fay assurance bi donc bu fekkee ne mën na joxe instruction ça veut dire am na dossier bu ñëw bu foofu donc bugguma polémique nag mais man xam naa ni dossier bi déposé nañ ko lundi boobu nga xamante ne moo sax moo moo moo moo jiitu. Euh, réunion de coordination boobu doon am ci ministère. mu mel ni sax histoire moo taxawaat ñi nga xamante ni ñoo séq mbir mi déggoowuñ ci kàddu. ay ñoom a Diagne ay ñoom euh, Maar ay ñoom Silla ay xale yoo xam ne nekkoon nañu NBA ñoom ñoo doon assuré. donc tey c' est pas parce que góor gi si jaay la ñu ne woy dañ ko war a assurer mais loolu amul fenn même partout vraiment en Angola mais ce sont les sociétés euh, d' assurance angolaises ñoom ñooy assurer les angolais qui jouent en NBA demal beneen au Nigéria mais pourquoi fii Sénégal ñu ne non non dañuy verser affaire bi NBA et puis waruñu la document boo xam ni dañ koy verser NBA. ngir ñu maytu bi la situation ëllëg principaux acteurs yi gis ni taxawaay yu mel ni war a amal. amul benn jour. NBA bu ñu wax ne woy NBA la ñuy verser xaalis lan mooy NBA la ñuy verser xaalis NBA amul assurance NBA c'est une structure boo xam ne dañuy organiser man dama bëgg ëllëg je pense que état aussi war na jël ay responsabilités responsabilité état mooy lan problème d'assurance yi ñu xool ne fii kat am na fi ay. ay société d' assurance yoo xam ne am nañu crédibilité ñu woo leen kat ne leen ñun kat dañu bëgg désormé ñu signé ngeen un partenariat ou bien un contrat boo xam ne ou bien une convention boo xam ne international bu war a dem jongante ji yéenay en charge assurance am. képp kuy joué NBA ak foo mënti ne ci àdduna bi boo waree dem si équipe nationale da def da ngay jaar ci yooyu muy ay Nowitzki ay Nicolas Batum ay Boris Diaw ay euh, Luc Mbamute bi nekk Cameroun ay Adamo bi nekk même américains yi nga xamante ne ay américains nañ. championnat bi nekk seen réew kuñ ci convoqué nga war a dem équipe nationale américain muy team USA da ngay fay team fédération américaine day fay assurance boobu. ngir mën a jonganteel ak sa sélection nationale nag joueur bi nga xamante ni dafa génn bitim réew war na am ñaari mbir yi maanaam autorisation bu clubam ak bu NBA ngir ñenn ñi. bu weesoo loolu ñu dolli ci li nga xamante ni mooy garantie assurance yi nga xamante ni fédération yi ñoo ko war a taxawee. Mansour Sow jaajëf yegg si nañ ci ponk bu mujj bu xibaar yi li ci yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall bu taxawatee di wax waxi bonne gouvernance laaj leen ko ku mu yàpp am ndax daa yëgul la xew ca SAPCO société d' aménagement et de promotion des côtes de zone touriste du Sénégal Bokar li ma ko jiite yàq na ko bi leen observateur Ndiouga Sakho jarbaatulaay wàdd bi jiite woon SAPCO li ko rapport yi waxaloon ci yorin wu bon gu mu ko fa wuutu woon ak nañ ko fa jëlee ndax yàq na ko kër ga Bokar li ma leen ne nañu tàmbali na topp seeni tànk te aw na yoonu joggati leen ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre atum 2014 la ñu ko fal directeur général bu SAPCO waaye am na ku ne waa l'observateur lépp lu ngeen xalaat ci yorin wu bon rek Bocar Ly defagum na ko ca SAPCO benn waay bu ñu naan Ibrahima Mbodj la fa njëkk a recruter def ko cadre supérieur ci jëlewu ko fa dara lu dul Ibrahima Mbodj ndayam ak nday Mahmoud Saleh ay mag lañu te waajooje ay lijaasam a kawe Bocar yamu ca ne da caa koo xam ci Ndiogo Ndiogo Ibrahima Anne waa ji ne waa l'Observateur mook Mahmoud Saleh ñoo bokk benn ndey observateur mel na ku naan ñu lu fen cib sëy nuyoo woon na ca ngoroga ne kii di Bokar ba ñu ko falee directeur général bu SAPCO bés bi ñu ko falee ca la ay tappaleem tàmbalee feeñ ndax ca CV ba ñu ko falee da ca bindoon ne am na DEA ci wàllu mathématique financière ma ko amee ca Paris Dauphine ba ñu ko gëstoo ba ca cappaandaw la li ñu gis moo di Bokar xamul sax mu juge ca ne am na doctorat en mathématique ma ngi du ca dëgg lii da Fatick tënk nañu ñu fa doon amal démb yéenekaay bi nañu ci la tënkee ci loole wàllu désenclavement mu di làqar bi dëkk boobee di Fatick ba mu neex a dem taxaw wàllu mbay mi taxaw gone yi foofee ci am liggéey taxaw nit ñi ci seen wàllu wér gu mooy fa ñu fas yéenee jëmbat yitte yu njëkk grand place dañu Macky Sall doog na jafe-jafe ren ba ñaari téeméeri milliards ak ñeent fukk ak juróom benn la fas yéene dugal ci diwaanu Fatick góombeeg fa muy gas-gase foofee la Macky nar a tàmbalee ngir faj Fatick Sud Quotidien nañu Macky la ngay jalis dëkk ba da koo sampal ay biteel defal koy perfusion ngir Fatick mën a dundaat Le Témoin nañu nàkkal nañu Fatick ñaari téeméeri milliards ak ñeent fukk ak juróom benn ngir mën koo suqaliwaat programme d'urgence développement communautaire ak dénk gi la ca topp journal bi nañu Macky Sall ba mu ca wax la mu ca moo di coow loolee amul benn njariñ réew mi di laaj lu am njariñ moo di gars yi ànd ak moom Macky Sall ñu naan leen ay alliés baadu dañoo joxe bopp bu nuppi rocc ci làmmiñ wax li tax réew mi quotidien di laaj lan moo tax kenn du leen dégg ci jaay gi ñuy jaay plan Sénégal émergent ñenn ci alliés yi di waa parti socialiste seen député di Aminata jàlloo ci le quotidien honorable moo amee xët mu njëkk ma xëy nag ci Macky Sall la mu njëkk wax waa le quotidien moom honorable amee Aminata Diallo moo di Macky Sall du dem ba noppi tegal leen ci ne réew mi doxul waaye ak band di am pecc rek moo fi am soxna si nañu fa Khalifa Sall doon candidat moo leen teree génn ci biir Benno Bokk Yaakaar yaakaar ji ñu wékkoon ci acte trois décentralisation bi ndax am na ca Walfadjri mooy laaj lu ni mel leneen lu journal bi xëy di laaj moo di ndax acte trois décentralisation boobee du ñu ko taxañ ba mu jekk lakk ko ñëpp nuppalu ñu dellu ca la ñu ne woon ñii dellu ca la ñu ne woon moo di waa front patriotique défense république direct fa nañu ca mbedd yi la ñu jëmaat delluwaat ca ñaxtu ya te gile yoon li ñuy ñaxtu nee nañu moo di xañ gi ñu xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef ñoom waa front patriotique défense république journal bi plan duy pexe ginnaaw jabaram Ndeye Fatou Diaga mi doon laaj ñu delloo ko juróomi million am yéenekaay bi nee nañu coon sekkit na ñu dafa tekki woon tubayam génne ay bagaasam di ko wane ci mbeddi Marseille yi ca yooyu la jamono dafa màndi woon ca la gaa woowee police ñu jàpp ko gannaaw bi ca la ko bàyyi Tamsir Faye nañu ci journal bi billaahi dañuy kàcc li ñuy wax dara ci amul populaire nañu consul général bu Sénégal ca Marseille mer na bay tëbaka dal ba ne sax day plainte police bu Marseille ne dañu ko tuumaal ne dafa màndi ba noppi génne ay bulluxu jullu xam ci mbeddi Marseille góor jigéen yewoon ci cité Alioune Sow ga ca golf te ñu jàpp leen libération xëy na ak ñun ci ni def ba jàpp leen yéen a kaay bi nañu juróom-ñaari góor jigéen lañu am na ci kenn koo xam ne moom Masamba la tudd nday jee ko boole ndax da doon sàcc di ko jox faram ñoom juróom-ñaari góor jigéen yooyu yëpp libération nañu ba leen police di jàpp ma nga leen fekk ñuy sangu ak a sangante grand place nañu ñoom juróom-ñaari góor jigéen yëpp ay tailleur lañu Mohamed Ndiaye ñu lay sant di la këram yéen tamit naka noonu ci seen safa ak kóolute rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon bu ci yàllaande euh, ci yeneen jataayu xibaar laata ñuy dem ñu fekki keps ci permanence keps ñu lay nuyu di la dalalati. ma lay fay euh, Fati. di mm. kontaan rek ci xibaar yi ni nga koy joxee mu nekk xibaar yu wóor te leer ak nag euh, tey moom chemise bi nag ma koy jox après. bul wax dara suñu paree rek incha allah kon xam naa échan lay doon keps ma bàyyi la ak téléspectateurs yi permanence léegi léegi lay doon. léegi léegi lay doon. kon Fati comme ni nga ko waxee rek ma joxe li nga xam ne moom moo di lenn lu nekk ak waxtu wi nga xam ne ca lay dawee ba pare nag am tamit invité boo xam ni euh, nday ndaak la ci wàllu fesmoka bi nga xam ne moom lay waajal. ngoog euh, mbokk yi léegi léegi képp si caam ci permanence jaa ngeen jëf seen safo ak seen kóolute ñeendu jàmm.